bon du ñun ñoo xam mais dañuy jàppare ni ay taxaw set la yo xam dañ ko war mëna partager ak ñëpp ci actualité yi xew ci campagne bi parce que aussi dañu wax ni amna na liggéey bu am solo bo xam ñun am nañ suñu devoir la ñun ñu def ko ci ci réseaux sociaux yi te bobu léegi ñing koy def te gis yalla yàlla ñu ci dimbali message bi di jàll bu baax a baax may nuyu ñëpp nak di ziar ñëpp di présenter waat encore di ñaan yalla aussi bañ wax lu ñu fi xébé di ñaanat encore yalla baña def lu ñuy xeebe maa ngi bëggé mam mam sen ma ngi lay ziar Farine ma ngi lay ziar Nene Nene bàyyi nga ma Nene bàyyi nga ma Nene nee ne bàyyi nga ma bàyyi nga ma waaw maa ngi ziar ñëpp nag ah, di bëgg ñëpp di dellu soit juste rek pour waxtaan ci li nga xamante ni mooy euh, vraiment ñu dellu soit tuuti ci violence bi nga xam ni commencé na dugg ci politique bi quoi te commencé na bu yàgg mais yàgg na am sax Sénégal c'est-à-dire Sénégal yàgg na am violence quoi yàgg na am ay fitna ci politique ay xeex. ay élection muy am ay xeex parce que yàgg nañ ko def parce que chaque fois dañu doon jàpp di leen nax di leen dugal ci yu bare bari ñu leen jox ay weccit ñu dem di xeex di rayante te ñëpp gis nañ ko quoi c'est-à-dire lu am la mais ni mu amee ci nguuru Macky Sall bi dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw mooy yàgg na am Médina ñun waa Médina lañ gis nañ Bamba Fall yi mu doon def foofu noonu ci mairie bi après gars yi di dóorante di xeex gis nañ chaque fois liñ doon gis jamonoy Abdoulaye Wade doon nañ ko gis mais dafa nekk ay affaires yoo xamante ni au fait homme politique bi daraan laaxatu quoi

aku punya kefaedah. il faut le diir il faut le dire ak doy di ak ñàkk fayda te maa ngi gis ñu naan ay euh, réew mi dañ fa bëgg jàmm Sénégal dafa war a nekk réewu jàmm dañoo war jàmm ñi ngi di ñaan fii di kii mais dafa am ay ay ay vidéo yoo xamante ni xew na ci dëkk bi fii xew na fi euh, te mi ngi fi xew yàggul dara dara dara dara dara du woon élection présidentielle yi nii mais ci élection yi weesu la te yàggul maanaam yi nga xam ni xew na fi ay référendum ak yenn affaire yi nga xam ay yu Macky Sall doon def ñu gis ay nit yoo xamante ni Macky Sall mu ngi taxaw di gis lépp xaaral ma leen benn bu ndaw ngeen xool ngeen xool نخلي xool lii ngeen baal ma je suis obligé quoi gis ngeen waa ji gaz bi mu yor gis ngeen waa ji gaz bi mu yor waa ji nii bi mu yor te mu sol t-shirt APR mu ngi sol euh, marron beige xool leen même gars bu yor jaas bi le même gars bu yor jaas bi instant xool leen mu ngi nii di génn ci oto bi xool leen Macky Sall xool ci oto bi président la république du Sénégal. gis ngeen Macky Sall.

nangam tan len nangam après léegi li askanu Sénégal yi après li kilifa diine diko après li imam yi diko gis ba di wax nan après ñu gis ba di wax non ça dure mais c'est vrai que la vidéo ça dure mais quoi qu'on puisse dire c'est une vidéo bo xam xewna ci Macky Sall mu taxaw mom mi nga xamanteni mom en tant que leader en tant que leader boo xam ne dañ ne kii moom lañ dénk moom lañ dénk ndombal tank dëkk bi yëpp c'est-à-dire lii waxuma moy mooy li nga xam mo xew actuellement ni mais li bokku na ci confirmer ni ñom ñoo taxaw di def yenn ñaawteef yi musuñu gis ko ko embauché ko xam da nga jël ay nerf bi te laqatu wo ñu solo seen i t-shirt bind ci marron bleu maron xaw maron fo xaw ma lan musuñu gis koo xamante ni président bo xamanteni da nga nek ci 4-4 ànd ak ay nit ñu jël ay jass def ko seen biiri poche di ko filmer mu leer ñu jàpp ni tim ko di ko dëggati comme kaña c'est que foofu laay waxee quoi cest à Sénégal loolu yëpp yàgg na fitna yàgg na fi am ci élection xeex yàgg naa am am na PDS am na PS am na fu nekk mais leader bi président bi ci boppam ki leen jiite ki nga xam ne tey sëriñ si taxaw yëpp ak imaam yi naan ay eh, nañ ñaanal Sénégal jàmm Sénégal nañ juboo Sénégal nañ nangam nangam mais il faut ñu xam kan moo war a yor jàmm Sénégal ak na la ñuy ñaanee jàmm parce que yonent bi bañ ko laajee lan mooy jàmm dafa ne mooy njub salaa salaam ku jubul mënoo am jàmm donc légui gis ngeen barki dem récemment yagul, yéen a ngi ben ben, benn euh, benn comment dirais-je ben benn militant euh, Pastef bo xamante ni à Saint-Louis dañ ko songu nee nañ dóor ko gañ ko blessé gravement blessé xaañ ko te pourtant ba léegi déggoo ben membre Pastef ben patriote bo xam ne na pousso wala dara ñu ne def nako ben membre songu nañ QG Pastef lu nekk ñu ngi koy def donc ça veut dire pour que ngeen comprendre ni lii yëpp li ko waral il faut sénégalais il faut man je m'adresse à la jeunesse sénégalaise parce que Sonko candidat au jeunesse bi la jeunesse bi jeunesse sénégalaise 75 de la ci population bi sommes ëpp nous sommes fi et te mag ñi ñi fekk si Sonko xam nga da ngeen doon fi nan son euh, que euh, Macky Sall day sàcc élection yi Macky Sall mënu sàcc élection yi te bëri na luy war ne Macky Sall mënu sàcc élection yi mënu ko sàcc motax mu jële fi Karim Wade mënu ko sàcc motax mu tëj Khalifa Sall mënu ko sàcc motax mu don jéem a sa saaxee fichier bi génn ci mënu ko sàcc motax mu tey 40 jàmbur yi mënu ko sàcc lu nekk jëm nako mais xam na ni élection présidentielle Sénégal kenn mënu ko sàcc mom loolu xam nako ko te mom nako wax Abdoulaye Wade Abdoulaye xam na ci dara sa loolu yëpp c'est dañuy sóob ñi rek di wax yenn wax léegi so gisee may wax nan may wax may def live bi ni c'est pour wan jeunesse sénégalaise ne Ousmane Sonko dafa am un million cinq cent mille de parrainage kenn ci ñoom amu ko kenn ñoom ñëpp nag laa am na si ñoo xam seen parrainage matul dañ ko mottali dañoo ñëw ñu waxaat leen ñu dem amul kenn ci ñoom koo xamante ni am kenn ci ñoom koo xamante ni parrainage am mat na noonu li ñu am ci parrainage ñun kenn amu ko ci kenn.

billaahi wallaahi policiers yi ngeen gis ñu ànd ak mbooloo yëpp mbooloo dañu leen di déplacé dañuy jël ay dañuy war a dem Thiès wala ñu war a dem Kaolack jël ay nit fii yàpp leen ci ay 4 x ay ay ay njaganjaay comme ni ñu koy defee jox leen xaalis ànd ak ñoom dem Kaolack Ousmane Sonko du def loolu Ousmane Sonko fu mu dem nit ñi ñoo koy xaar ba pare joxul kenn dara nit ñi ñooy dajale seen xaalis toog foofu xaar ko te foofu la ñuy dëkk foofu la ñuy nekk waa bu demee Kaolack waa Kaolack la fay fekk bu demee Ziguinchor waa Ziguinchor la fay fekk c'est-à-dire politique Ousmane amul ay fen daraam amul ay fen naxul kenn ci dara lépp lu muy def dafa leer transparent parce que nguur moo ko jaralu loolu te wane na ko wax ko jaralu ko jaralu ko yenn yi léegi nag dafa am loo xam il faut ngeen ko mag dañ leen di nax bu leen gis euh, euh, candidat bi am ay nit yu bari naan non mais Sénégal yi nan lañ mën a Sonko am ñu ñu bari kii am am na ñoo xam ne seen i mbooloo benn mbooloo la te moo la ñu topp fu ñu dem bëgg ma fi nekk ci ay détails di citer ay ay ay candidats mais juste pour ngeen comprendre ni ñun li ñu am dafa leer ba pare jeunesse bi ñoo topp ci ginnaaw Ousmane Sonko te inshallah le 24 février confirmation bu leer lay Moral waral agression yi Moral waral pas bi Amna information boo xam ne wadd na ngeen comprendre ko xew na te ñun yëg nañ ko te ñi ngi xaar parce que Moussa Cissé Lo Moko def te yëg nañ ko bu baax a baax a baax a may wax nag képp kuy patriote na nga bàyyi xel loolu bu baax parce que Ousmane Sonko instant meeting bi dañ ko bëgg saboter dañ ko bëgg saboté tax ñu am ñu jël jël ay 300 300 trois cent nervi trois nervi lañ jël yo xamni c'est juste pour saboter meeting Ousmane Sonko yi meeting Pastef yi ñu top Ousmane Sonko fu mu dem ñuy sané xel di saboté te gis nañ nañu yëg nañ ko te gaay bañ koy wax fi ko waxé lépp message bi yegg affaire bi yegg na bu ci ñun te ñafa nekkon nekkoon di ko réunion yëpp nit ñi nekk ci dëkk bi xam affaire yi wax nañu nu mu démé yëpp te ñi ngi xaar parce que ñoom jotaguñu seen xaalis ñoom jotaguñu seen xaalis te lu am lu am lu am am solo lu jar a xel la léegi nag comme jotaguñ seen xaalis moo tax defaguñ benn action pareguñ def benn action mais li ma bëgg comp comprendre ko mooy actuellement au moment où nous sommes nous ñi ngi jëm a tendre ay pièges di jëm a ay affaires Nous xam dañu bëgg saboter meeting wu meeting wu meeting wu Pastef parce que mooy benn benn opposition moo fi am Pastef la moo fi nekk di def lucide lu normal teg ko ci yoon respecter nit ñi respecter opposition respecter pouvoir respecter république bi respecter institution yi di dox doxalin bu positif benn opposition la propagande naxaatewul foo dem da ngay dégg ay meeting nga dégg ñu ñëw waa section Touba tey ñu ngi Thiès kat naan ñu ngi waa section Touba wala ñu ngi Kaolack naan ñu ñëw waa section Ndiarème wala ñooy waa section Fatick nga koy dégg donc li am solo moy mu leer ni ñooñu dañu dajale ay nit yu bari bari ci ay différentes localités def leen ci ay njaganjaay pour dem ben bërëb pour tromper askan wi parce que politique bobu mo fi jeex politique bo xam RTS day ñew doon filmer comme ci jamonoy Abdou Diouf jël ay meeting yu njëkk ya diko collé ak image loolu la RTS doon def jamonoy Babacar Diagne wala su ma gisee mu toog ci télé bi di wax naan day joxe ay éthique ay ay leçon de morale ay réer la def sax donc yooyu c'est des choses yo xamanteni tay yu jar dama bëgg sénégalais yi ngeen gën confiant la jeunesse sénégalaise gën leen confiant vous les patriotes xam leen ni yéen gañ ngeen élection yi ba paré dem len ngeen carte ne ku vérifier fan lay voter ñu dem en masse pacifiquement seetaan len bu len provoquer kenn bu len xulo kenn mais sen sen lolu ñuy nous non ñoon ñu def ko am 317 nervi ah, ñun yek nañ ko information jot nañ ko dem ci goudi information yi wacc na wax nañu fi ko waxee te ñi ko wax ay nit yu wóor lañ ay kilifa lañ ci dëkk bi pour saboter ay meeting Ousmane Sonko pour saboter ay meeting Pastef pour mais taxul ñu am parce que li am solo que na comprendre loolu préparer ko xaar préparé ko waxuñu dit ñu xaar pour xex mais ñu ils feront tout pour saboter li nga xamni démarche président Sonko duñ ko réussir inshallah, duñ ko parce que depuis le début ñi ngi def lu ñu mën mais yalla sétanu leen yalla ak ñom yalla parce que yalla ak ñom parce que li tax ak ñom am la sax parce que respecté wuñu seen respecté wuñu seen askan bis bu jot ñu ko quoi ma ngi koy wax ba légui ba tay ni tay sangu ñu ko def sangu ndox sax ko am campagne chaque fois maa koy wax donc Sénégal qui pour xeex pour jëlee fi Macky pacifiquement jël sa carte électeur fas yéene voté ji militant pastif, yi Sénégal na def profil photo Ousmane Sonko ñëpp ku Facebook WhatsApp ñëpp profil. photo Ousmane Sonko période bi ñu toll ci campagne bi wan leen nañ leen wan parce que campagne dafa nekk loo xam dafa am solo dafa am ñaari angle la soo gisee man may dem di def ay télé ci poste di dem ci biir di dem ci biir di ko wane dem ba ay Thiès di dugg ci kër yi di ko filmer c'est pas pour wane ni ñi ngi def lii déedéet wante wuñ si mais dañuy wan yeneen jeunes sénégalais yi wan yeneen jeunes sénégalais yi wan leen ni ñun ñu ngi jug di def lii te pourtant ñun a gën a maase te Sénégal rek moo tax ñu koy def kenn joxuñu dara ñun ñu ngi xeexal suñu réew te pourtant loolu lu war a mën a nekk ñun ñëpp mën nañ service suñu réew parce que responsable suñu responsabilité la ñun ñëpp te surtout nag dama koy waxaat responsabilité jigéen ñi aussi parce que jigéen dafa am rôle bu ama am solo ci éducation doom ñu uuf seen doom yi di nàmpal yëpp xam leen lu ngeen voté lu ngeen waxtaanul ak seen jëkkër naxanteel ak moom waxtaan ak ñoom expliquer leen ce qui se passe en réalité parce que da ngeen am part de responsabilité bu rëy ci xale yi ni ñuy màggee ak yan nguur la ñuy topp ak ñan ñoo nekk ñoo xam ne ñoom la ñu war a voteel if loolu dafa dafa war a jeex jeex na c'est fini dafa war a jeex léegi moo tax damaa bëgg ngeen comprendre bu baax a baax a baax a baax a baax ni pare nañ ñi ngi pare ay coups yu doy waa mais élection yi incha allah am ci jàmm Ousmane Sonko dina campagne ci jàmm wax sécurité bi da gars yi comprendre lolu parce que ñun Ousmane Sonko bu démé fi on préfère dem fenen parce que bëgguñu ànd ak président Sonko ci bërëb yi dem on va essayer de voir inshallah allahu rabbi vendredi ñi ngi Mbàkke vendredi ñi ngi Mbàkke dañu def proximité fofu euh samedi ñi ngi Touba euh ñi ngi Touba dimanche ñi ngi Njaareem cest vendredi ñi ngi euh samedi ñi ngi Touba dimanche ñi ngi ñi ngi Mbàkke donc loolu lañu def dañuy def proximité porte à porte ak yeneen association yo xamanteni ay patriotes la ñu nekk partout dans le Sénégal mbacké Macky Sall il paraît que 100 millions la fa dugal 100 millions 100 millions ta te pourtant xoolal ànduñu sax ak moom ànduñu sax ak mom c'est-à-dire alal bobu yëpp ñi ngi koy yàq xool leen ba léegi nit ñi amuñu ndox ñu koy campagne parce que dañoo gëm ni 7000 milliards buñ ko lebee pendant les élections nañ gëmloo nit ñi né xaalis bi mooy tax nit ñi topp leen c'est pas vrai nit ñi toppuñu leen kenn topatu nit ñi dañoo déssé sen corps dañoo dese seen gëm-gëm dañoo dese seen seen seen seen jom dañoo dese seen seen seen seen seen seen seen seen bopp c'est il faut il faut que il faut que loolu leer nit ñi dañoo dese seen ngor seen gëm seen jom te loolu mi ngi fi ba tey donc message yi mooy ñi ngi doon préparer ay coup pour jéem a daaneel Ousmane Sonko pour yàq ay pour yàq campagne am bi incha allah duñ ko réussir incha allah duñ ko réussir 317 nervi ku nekk 200000 francs lañ leen war a fay waxaale ko ba pare. nañ ko wax ba Macky Sall war leen ko jox maa ngi koy wax fii boobu ba léegi dem ba ñoom ñu ngi koy réunion ñu ngi toog di ko réunion te xoola ñu insha allahu rabbi na ko waa Pastef bàyyi xel bu baax a baax a baax na ko patriote yi sécurité bàyyi xel te ñu moytu ku leen yee ci ku leen woo ci fitna may wax nag encore ne image bii ma teg ça dure yàgg na mais day wane ni Macky Sall nitu fitna la du nitu jàmm parce que moo ànd ak ay nit yor ay jaasi def ko seen di këdd nit di ko dóor loolu du ko nangu kii nag lañ jox Sénégal kii war ko war ko dégager mu jige fi ci jàmm ñu teg président boo xam day am yërmande ci askanu ndax doole yàlla jox la ko pour ngay fitnaal nit ñi di leen dóor nit dina la tooñ sax nga jégal ko ndax njiit dangay ngay jekku nga baale parce que dafa am solo dafa am solo ay wax yooyu ngay jekku di baale ngay nga nga nga am doole nga mel ni amoo ko nga gis nit muy def loo xam du yoon nga tànqam lu ko mu pare nga woo ko loolu mooy njiit mais ñun malheureusement amuñu njiit sept ans lañ perte suñu temps jiital koo xamante ni amul xol amul xel élection yi nag jot na nag gars bu baax a baax ngeen conscient bu fitna am bu kenn xeex bu kenn dorante récupérer na seen bu kenn supporter suñu élection présidentielle yi nga xamni dañu war a far Sonko massivement dugg ci bureau de vote yi def suñu campagne campagne bu rafet suñu discours rafet suñu candidat nek nit ku set nit ku noble nit ku am dignité ak valeur xam boppam ba paré ñun ñu and nak fal ko jëm moom bir paré ba paré défar Sénégal ci fulla ak fayda donc loolu la doon wax tay dama doon wax ci walu violence bi di wax ni provocation bu ko kenn top 317 nervi ñi ngi xaar seen xaalis na waa sécurité Pastef gën a taxaw fu ñu dem ñu opéré ko bu baax samp ko dëgër ko bu baax fu président di dem ñu topp ko xool naka la ñuy meeting bi te ñoom ñëpp localité bu ñu dem ñun xam nañ ne am nañoo kenn ku dul ñi nga xam ñoo leen topp moom de personne bu minime bi leen topp bokkuñu ak ñi dem fay leen topp donc maa ngi siyaar di bégee di jégalu baax a baax laay boobu laa bëggoon def vite Euh, fàttali leen fàttali leen aussi information yi nga xam ne yëg nañ ko yëg nañ sax li gendarmerie malheureusement Macky Sall comprendre ni la gendarmerie n'est pas avec lui ko police bi ko la comprendre xamul ni dañ son. ne sonn pas ko réew mi ñëpp sonn kenn gëmu la kenn Macky Sall sonn ko dañu bëgg mu quitter Sénégal maa ngi nii ñëpp di ziar ñëpp bu leen kenn dugal ci fitna bu leen kenn dugal ci ay te képp kuy sëriñ mbaa ngay imam lal sa kaaminu alxuraan naan lar ay daara naan lañ leen jàng Sénégal am jàmm ku bëgg jàmm Sénégal wool Macky Sall wax ko mu bàyyi fitna bi muy teg ci kaw ñi nga xam ne moo leen ëpp doole parce que pouvoir moo ko yor wax Sénégal mu def parce que yonent bi dafa ne jàmm mooy njub ku jubul munoo am jàmm waaw message boobu laay lancé sëriñ si di ko lancé ñëpp ñoo xam ne am nañ baat ci réew mi nañ dem que Cissé Lo kasara yàlla la rek jarul ne fi sax di expliqué nit quoi du parce que parce que nit moy def yëfu nit ku dul nit nag man man pour man do wax mom wax nit quoi si c'est lo du nit léegi ñun ñi nga xam ay nit rek xam ne ñun Sénégal lañ am am fi ay doom war fi am am fi ay yaay war fi samp leneen war fi teg leneen ak leneen suñu réew ñu dimbali ko gindi ko ci yu bëree bari ñun amuñu jot Cissé Lo quoi amuñu jotul Carlos yooyu quoi amuñu sen jot donc message bi lool la ma ngi balu ñep ak di wax ni luñ fi wax mu baax ngeen xamni subhanahu wa taala luñ fi bar wax mu bon ngeen xamni sama la sama matadi ak sama doye di nit la ko ñep rek di leen jégalu baax a baax baax di wax na gaay gëna renforcer sécurité bi gëna taxaw gëna respecter campagne bi tek ko ci yoon jërë ngeen def wa salaatu wa salaam ala rasulullah vous avez déjà gagné les élections jërë ngeen def